dañuy door suñu kàddu ci euh, jébbal suñuy njaal euh, ci famille bi nga xam ne tiis yi dafa dal seen kaw wala famille yi nga xam ne tiis bi dal na seen kaw ndax euh, lu métti la te accident yi ñu wax ko fan yi ëlëm na xel yi yokk na lool ah, ñu ñëwoon fii nag ci tuuba sàkku ñaan ci sëriñ bi ndax ci barkeem yàlla mën na def mën na ko ruusee en tout bu ñaanee mu nangul ko ko accident yi wàññeeku waaye fekk tamit ñun jël nañu matuwaay yi ñu war a jël yal na yàlla bay sa tool. yaakaar naa ne du ñu ko yokk ndax samay équipe ñu ngi doon waxtaan ak ñoom te ñoom tamit euh, euh, xam nañu ne nit ñi dañoo ñëw pour euh, sàkku si ñaan pour màggal si ki nga xamante ne nii mooy Serigne Touba. kon am naa yaakaar ne raxma bi dina ci feeñ maanaam dinañu am yërmande ci askan wi waaye tamit transport bi li mu laaj. Euh, faw ñu commencé di ko moderniser faw tamit ñu may askan wi ñu mën a am ay transport yu gën a moderne maanaam yu gën a mucc ayib ba tax na dakaar Dem Dikk day bokkaat ci màggal gi bi yoon sax li ñu indi dina ëpp li ñu indi woon ci tabaski gi ñaata lu gën ngaa néew ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñetti bis sans compter saxaar yi tamit dina ci ñëw Grand Train du Sénégal yoonu jàmm ak yu ni mel loolu day tax rek euh, euh, dem beeg dikk bi gën a yemb waaye ci ay conditions ndax xam nga ne Dakar dem dikk dañuy former seen ay chauffeur dañuy contrôler seen ay oto moo tax daanaka néew na nga dégg ci accident. li ñu woowee état généraux te altine ji sax dina am séminaire bu ci dooraat boo xamante ne ni suñu ay équipe ak ay kuréel yi gën a mag ci transport bi dinañu daje xeltu ci lu mat ñeenti fan. mi séminaire bokkut ak nag états généro bu mag bi nga xam ne bu soobee yàlla ci fii ak fin septembre lay am te lañ fay waxtaanee loola bokk na ci naka la ñuy gérer gare routière yi waaye naka la ñuy yoonalee nit ñi mën a am ay gare routière privée su ko defee ñu mën a am contrôle ci transport